maître Moussa Sarr euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. ñu am mbégte dalal la ci matinalu réew mi FM war a waxtaanee actualité de manière euh, générale ñu dooree ko ci mbirum Guy Marius Sagna activiste boobu euh, ñu tegoon loxo ci buntu palais ginnaaw bi mu fa manifester moom ak ñeneen démb yéen a ngi woon ci kanamu chambre d'accusation ñi ñu ko boole woon a jàpp bàyyi nañu leen waaye moom lañu ñu noo jàngatee boobu décision maître. waaw ni ñu koy jàngatee rek mooy ci ñaari fànn benn bàyyi nañ Ousmane Sarr te li neex ci bàyyi bi mooy chambre d'accusation dafa ne Fallou Galass ak Ousmane Sarr juge d'instruction du premier cabinet waru leen woon a yóbbu ci kaso téye leen fa téye négandiku ko yóbbu boobu mu leen yóbbu kaso ngir téye leen fa téye négandiku méngoowul ak yoon kon loolu dañ ciy bëgg maintenant li jëm nag ci Guy Marius Sagna dañ ci am lu ñu neexul donc euh, amuñ ci daal lu ñu neex mm. parce bu ñu sañoon mu fekki juróom-ñett nawleen yi nga xam ne moom ñoom ñoo demoon sa marché ba ñu jàppalante bàyyi ñëpp kon loolu amuñ ci li ñu gënal waaye ak lu mu ci mën di doon ñu ngi sant yàlla ñu wéyal xeex bi incha allahu rabbi ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo koy layoon pour que Guy Marius Sagna mën fekk ay nawleem nu gën a gaawee ci biti. ñu ba tey maître des ci wàllu yoon euh, détention provisoire tey nekk fii problème euh, bu ñu gisee ñi nga xam ne ñëpp teg nañu leen loxo ci wàllu woowu moom donte euh, liberté mooy règle bi comme niñ koy waxee exception moo wax a nekk teg loxo loolu tamit nekk góom bu nekk ci wàllu justice lan moo koy saafara ci sa xalaat. ay proposition yu bëri jiboon na fi sax. waaw loolu góom bu tar la. mu ngi mu ngi bëgg a yàgg ci réew mi koom bu tar la te war nañ ci jóg pour faj ko parce que mu ngi jur loraange yu bëri boo xayma daanaka téeméeri nit yu nekk ci kaso bi daanaka ñeent fukk yu ci topp yëpp téye négandiku mu leen fa mm-hmm. eh, xam nga loolu lu xaw a doy waar la mm-hmm. dafa jéggi dayoo kon loolu li muy tekki mooy war nañ xoolaat suñu doxalin yi war nañ ci fànna woowu kon li ci nekk mooy nañu jëfe nañu jëfe proposition yi mooy xalaat yu rafet yi nga xam ne ñun ñuy liggéey ci yoon yëpp ak yeneen citoyen parce que mbiru yoon du ñuy liggéey ci yoon rek ko moom citoyen itam ñoo ko bokk moom ndax yoon dañ koy jël di ko dogal ci turu askan wi donc dañu war a jël ay matuwaay surtout nguur gi parce que moom moo am sañ-sañ boobu pour ñu indi coppite yi nga xam ne mooy tax sunu yoonu réew méngoog jamono nag war nañ ci dem nu mu gën a gaawe waaye nag il faut nguur gi def ci pas-pas def ci farlu pour coppite ko def. Mm-hmm. yu bëri jugoon na fii bokkoon na ci sax euh, bracelet électronique beeg yooyu pour yow lan moo tax ba tey loolu euh, ñu tëkkoo doxal euh, te ñëpp ràññee nañu ne détention provisoire yi problème la ci Sénégal. waaw loolu li ko waral rek mooy ñàkk pas-pas nguur gi rek. li ñuy wax volonté politique. xalaat baa ngi fi jaratul daje di wax. li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko bu yàgg a yàgg li ñu jàpp ne moo mën a defar yoon te ñëpp d'accord ci ñëpp nangu nañ ko kon li ci des nag ay la yéwén mooy nguur gi nga xam ne moo am sañ-sañ jël ay matukaay pour wéyal li nga wax loolu mbiru bracelet électronique exemple la ci eh, indi li ñuy wooye de la détention et des libertés ko pour muy saytu balaa ñoo yóbbu kenn kaso ñu wàññi doole bi nga xam ne moom la procureur am ci réew mi ak yeneen i coppite ci nguur gi rek la dese parce moo am sañ-sañ bi moo war a wane pas-pas ca te ñu koy xaar ci moom. Mm-hmm. lu soxal Guy Marius Sagna benn laaj sànq yaa ngi koy wax ci nasaraan tey moom représenté na garantie yëpp ngir mën a am liberté provisoire euh, kon noo comprendre le fait que ñu téye ko ba tey ci kaso bi. Euh, li ñu ko téye ci kaso bi wax naa leen ne dogal boo xam ne la euh, man neexuma d'accorduma itam ci dogal bi am naa ci aussi mbetteel. ndax charte yi nga xam ne moom la yoon yëpp santaane Guy Marius Sagna matale na ko pour ñu bàyyi ko bàyyi ndekkandiku waaye terewul bàyyiwuñ ko kon li ci nekk rek muy wéyal xeex bi ba ñu koy bàyyi nu mu gën a gaawe donc mbetteel laa ci am li ma ci am du li ma gën a d'accord waaye nag dañuy sant yàlla continuer bëri euh, beneen mbir boo xam ne yaa ngi ci am client aussi mooy li ñu naan affaire Lamine Diack muy wàllum guerre bi ñu wax ne amoon na ca Idozaïev Pape a Diack euh, moom ngay défendre keroog ngeen demoon Paris le a procès bi ñu dàq ko euh, lan mooy expliquer renvoi boobu maître waaw ñun bi ñu demee tugal si kàttanu suñu borom dañuy ñëwoon taxaw temm pour taxaw suñu client Papa Massata Diack pour won tribunal français li ngeen koy tuumal teg ko ci waaye bi ñu ñëwee dañoo am mbetteel bu rëy na dañoo ñëw toog parquet national financier procureur français boobu nga xam ne depuis deux mille quinze daanaka juróomi at moo ubbi l'enquête bi moo jàpp bésu layoo bi ñëw taxaw ne man jekkaguma pour ñu layoo mm-hmm. ñu ne ko lu tax mu ne benn commission rogatoire bi Sénégal exécuté man dama ko yéex a jot mais bu ko yéexee jot du ci Sénégal yi du ci état Sénégal nguuru Sénégal du ca dara mm-hmm. justice su Sénégal la ñu war a def def ko ba pare nguur gi yónnee kayit yi diggante nag ministère des affaires étrangères bu France ñu koy wax Quai d'Orsay mm. ak ministère de la justice chancellerie soo amee yéex loolu mbiru français la. Mm. état Sénégal yoonam nekku ci ñun citoyen sénégalais ci yoon nekku ci suñu réew la mu war a def def na ko jébbal na ko France bu France nag baralul li muy def ba mbir ma yéex kooku seen mbiru bopp la suñu yoon nekku ci. Mm. ñaareel bi tax mu ne dafay ñaan renvoi dafa ne kayit gi nga xam ne moom la juge d'instruction bi jël pour yónnee ko tribunal bi pour ñu àtte Massata mu ne kayit gu baaxul am njuumte hmm. ñoom ñiy topp neen dafa am njuumte kon nañ delloowaat kayit bi ci bi mu ko loolu lañ sukkande ko pour renvoyer kon mu nekk lu doy waat kii topp moom ci boppam moo ne jekkuma moo ne kayit gi ñuy toppee Papa Massata yaa kayit gi baaxul hmm. nañ ko defaraat kon am na lu muy wone hmm. ci biir mooy kon mbir mi am na lu ci rax lu indi njuumte loola xam nga loolu bu xewoon fii ci réewu Sénégal. Mhm. français yi doo dégg tey. yoon amu fa nangam amu fa mais gis nga bu xewee seen réew kenn du wax seen i surga yi ne fii ci réew mi kenn du wax te dañ fee bëri surga. yow ci sa xalaat loola lu mu làq. mais li mu làq rek mooy tooj mooy li ñuy tuumal Pape Massata amul. Hmm. sos yi neen la. ay tapalay neen la. loolu indi njuumte xam nga mbir boo ci bu nekkee li ngay def. tegoo ko fa ko war a teg forcément yàlla daf lay weer. xam nga lu toll juridiction française ñu ñëw taxaw ne. kayit gi nga xam ne moom la ñuy toppee matata. kayit gi baaxul. l'ordonnance de renvoi est irrégulière mais loolu tojaange la soxna si. Mhm. ci réew moo xam ne ni France nga xam ne ku yëngu ñu lay jox la so di ñu jox la so ñun Sénégal a ñeneen. comme mhm. donc tojaange la loolu loolu musiba la ça pour que mbir mi tappale daf ci am. Mhm. waxu kasaw kasaw daf ci am kon jàpp nga ne yow ca ca Pandaw la sa client danañu ko ragg ba mu ci mbir mi. xam na li xew ëllëg moom yàlla rek ko xam. man jaamu yàlla dong laa su ma waroon mooy am yéene. Mhm. ut pexe lu ma yoon may. Mhm. am naa yéene di pexe yi ma yoon may yëpp dinaa ko jël te bi ma jàngatee dossier bi jàpp naa ne ci jëf ak droit ma client deful dara kon man danaa taxaw temm ak fulla ak fayda. pour wan tribunal français ne suma client bi ngeen topp defu ci dara la ci def nag sunu borom ko yor mm. damay ñaan yàlla nag suma yéene ak suma pexe tombé ak dogalu sunu borom ndax suñu borom yor lépp. yàlla baax na alors maître ñu wax ci wàllu politique ku ne xam na ni itam euh, am nga ci euh, xam-xam tey euh, ñu gis géopolitique bi yëngu lool démb par exemple Moustapha Diakhaté dàqee nañu ko ci APR li ko waral umpul kenn foofa dama lay laaj ñu gisee ëllëgu parti ndax tey dafa mel ni dañu koo tàmbali di def moomeel xaw na fee yàgg sax waaye bu wéyee nii foo gis ëllëgu parti politique yi ci Sénégal. waaw xam nga Sénégal moom ëllëgu parti politique yi. coow rek lay doon. Mm. xiiroo ak mbaal mbaaloo ku li ñu koy waxee. Mm. su ma wolof leerul tam. Mm, leerul ëllëgam loo rek la. li ko waral xam nga mooy lan. xam nga réew mu toll ni Sénégal réew su tuuti. 16 millions d'habitants. fukki millions ak juróom-benn ñu ne am nañ lu ëpp ñett téeméeru parti xam nga loolu soxna ji waxu caaxaan la waxu kasaw kasaw mel ni politique liggéey font de l' entrepreneuriat politique ñenn ñi du ñëpp nag mais ñenn ñi. Hmm. ñi ci gën a bëri dañoo deel politique def ko liggéey pour eux la politique c' est une activité d' entrepreneuriat donc au Sénégal certains font de l' entrepreneuriat politique. Hmm. donc bu nekkee ni mbir mi tegoo ko la tax mu tax la tax mu jóg. Hmm. mooy ñoŋal dundinu askan wi. soppi wante ay xalaat soppi wante ay gis-gis joŋante ca loola pour que askan wi mën a am gis-gis bu leer tànn ki gën ci moom. ou ki mu yaakaar ne moo gën bu amul ki gën mu jël ka tane mu nekk mbiru loo am def sa poste su boobaa coow rek la yam donc looluy coow li moo tax mbiru politique bu Sénégal dafa des li ko waral aussi mu ne ci biir parti organisé wuñ ko normalement boo demee parti yi bañ ko gijee renouveler ña fa nekkoon depuis jamonoy maam ba léegi ñoo fa ne ña ko sos kenn du fa jóge mu mel ni moo mel alors que mbir mi association la kenn du ko doon kenn moomu ko ñaar ci biir parti bi amul démocratie démocratie mooy lan duñ may ku ne nga wax li nga xalaat saa bu nit waxee li mu xalaat mu waroo ko ko jiitoo ka ko ñu ne doo ko fi waxee pour la politique nag dañu war a bàyyi ci biir parti nit ñi di wax seeni xalaat bu ñu waxee nag seen xalaat ba pare ñu dajaloo ne ñun lii lañ daal loolu indi mel ku ci falu u ñenn ñi bu ñu falo ñoo xam maire lañ ñoo xam euh, conseil municipal ñoo xam ministre lañ ñoo xam leneen ak leneen lañ ci seen doxalin da ngay gis ne dañu am déficit de culture démocratique lu leen neex rek lañ xam xamuñu lu jaadu. est-ce que foofu tamit financement bi mooy poser problème maître parce que dañuy faral di gis benn nit bu euh, sampee parti daanaka euh, la cay dem lu ci bari ci wàllu koom ci poosam lay jógee. waaw mais bu nekkee ne moom am na. Mm. ci poosam ah mu def ci mais ce n'est pas parce que da yow da génn sax parce yaa moom parti bi. Mm-hmm. loolu la war a bàyyi. Mm-hmm. boo demee même dugal parti yi nit ñi dañuy cotiser. Mm-hmm. ñi cotiser yemuñ ñi ëpp barke ñooy gën a cotiser mais tekkiwul ne li ngay cotiser moo ëpp que yaa ko moom ak loo ci tax nga jàpp ne sa moomeel la. Mm. warul tax ñi nekk ci biir parti bi ne jàpp ne sa moomeel bu ngeen bokk la association yaa mais munul tere nekk bokk ak yow indi seen gis-gis ci bi ne lii moo gën ci parti bi. ci suñu gis-gis jàpp nañ lii moo gën ci réew et puis ngeen weeslante seen xalaat su boobaa nag bu mbooloo mi dajoo ne ñun ñëpp lii la ñu tànn nag ñu wéyal loola waaye nag kenn du ko fi wax loolu du démocratie. Mm. loolu du dundal parti politique gu Sénégalais yi te dafay dem ba wàll doxalinu réew mi bu amee ñenn ñuy si yegg ci nguur gi parce que li ñu tàmmoon di doxal seen biir parti bi mooy suma xelaat rek a fi wéy suñu dem itam loolu lañ fay yóbbaale donc day day jur ay jafe-jafe te bu nu mayiwul tam parti yi gën a bari ndax bu dee kuñ dàq nga samp sa bos itam euh, danañu weesu trois cent yi waaw mais xamul dafa mu koy weesu mooy li ma la wax ñenn ci acteur politique sénégalais dañu jàpp ne politique liggéey la xam jarul nga am compétence. jarul nga am jikko bu rafet jarul nga am taxawaay bu rafet. Mhm. pour am xaalis li ci gën a gaaw mooy nga créer parti politique mbaa nga créer mouvement. dem bokk ci benn coalition dem bokk ci benn groupement ngeen bokk kumbit pour séddoo li fi nekk xam nga loolu ñu loolu lañ ko jàppee soo ko jàppee noonu nag liggéey lay doon ci yow bu nit ñi xëyee liggéey yow nga nelaw ba onze heures midi naan sa kafe après ngeen nekk di wax di kumbit ci kaw askan wi te loolu yëpp askan wee ci loru kon il faut ñu xoolaat suñu nekkinu parti il faut ñu xoolaat suñu démocratie parce que bu ñu deful nag démocratie ngir la ñuy am mais duñu am démocratie bu dëggu te bu ñu amul démocratie bu dëggu réew mi du jëm fenn wax ji dina bari corox corox yi bëri mais du jural dara askan wi te loolu taxul politique jóg politique yi tax mu mooy ñu jéem a ñoŋal kaw soppi wan di xalaat nekkinu askan wi. dialogue bi ñu fi sumb yaakaar nga ni dina jural njariñ askan wi ca cappaandaw la. man mooy waaw mooy suma yaakaar man euh, jàpp naa ne démocratie waxtaan ak ko yor li ñu naan la concertation et la sève nourrissère la la démocratie la concertation kon waxtaan dafa baax te réew mi suñu aada mooy waxtaan waaye nag waxtaan balaa baax. mu nekk waxante dëgg waxtaan pour mu mën a jëriñ muy ca biir kër ga muy ca bureau ba muy ca biti muy ca réew ma na tegu d'abord ci dëkk na lalu ci dëgg na lalu aussi ci lii njëriñu askan wi waaye waxtaan woo xam ne baara yëgoo kese lay jur loolu amul njëriñ te maa ngi yaan yàlla waxtaan yu bañ a nekk waxtaanu baara yëgoo kon su boobaa pàcc nañu suñu temps kon bu ñu waxtaanee mbiru politique mbiru élection ba pare nañ jublu ci nekkinu askan wi pajam dundam njàngam napp gi mi yooyu la ñu war a jublu buñ ci jubloo natt xoolaat gëstu nekkinu réew mi ci fànn yi nga xam ne moo soxal askan wi ba am ay ponk ñu ci juboo su boobaa ñu wéel ko booba dina am njëriñ ñu ngi ñaan yàlla nag mu nekk loola. yaakaaroo wàllu politique bi dominé xëy na ba mu demee ne ne ndax ay dialogue yu bari sumboon nañ ko fi waaye gis nañ njeexital yi. waaw bu nekkee loolu la le tout politique amul njëriñ. Mm-hmm. dama ne xam nga Sénégal li ko yàq suñu démocratie c'est une démocratie électorale pour ne pas dire électoraliste. ñun suñu démocratie waxam yëpp mbiru élection la. suñu homme politique yi seen wax yëpp mbiru élection la te xam nga lu nekk mbiru élection xam nga lenn moo leen soxal nu ñuy def ba yegg ci nguur gi ak nu ñuy def ba toog ci nguur gi kon wax boo leen indi ndaje moo leen indi nañuy def ba toog la ñuy seet ou nañuy def ba dugg. xam nga su boobaa du am njëriñ. Ah. mais ñu ngi ñaan bii fa bu ñu waxtaanee ci pàcc dialogue politique bi parce que loolu mënul ñàkk aussi ndax réew politique a koy doxal. Mhm. ñu jublu nag ci li soxal askan wi te yàlla tax parce que dafa jot nag ñu xool askan wi ndax askan wi wax dëgg fa yàlla am na ay jafe-jafe yu bëri. te nag dañ ko war a saafara sonn nañ te loolu nag ñu ngi koy yaakaar ci waxtaan wi. jërëjëf maître ñu ngi lay nuyu amoon mbégte lool dalal la ci waxtaan wi tey. ñu ngi lay gërëm tey. ñu ngi lay gërëm tey.